quoi après ñu jël filmal bu baax a baax man Seydina Omar laa tudd. ñu si dëkk bi lépp tey dafa bari tey tey dañoo jug pour xeex lépp. tey ci suba dafa am seen benn waay boo xamante ni Touba lañ ko yónnoon muy dem mu retourné ba ñëw ba ci école bi fii romp rond point bi fi mu droit doon ab camion jóge fële da daw lu bari fekk ko fa mbëkk mbëkk ko troisième position te loolu du yoon te ñun dañu dem waaw. te loolu nag te nag du c'est première fois am fi ndax ñu def ay xor ñooñu ci télé bi yoo xamante ni ñu koy muñaale te du tey beneen bi ci nekk ASP yu sonal lañ ñu trop Amar Ndiaye fu ñu trop mu jàpp moto yi ñëpp am ay kayit di dagg ay quittance normal dañ lay fekk sa arrêt dañ lay fekk sa arrêt paisement yi di la jàpp ci loolu yoo xam ne nekkul yoon ñu suñ moto yi lañ am sàcc ñu fenn ñu defuñu dara nañ ñu bàyyi ñu liggéey dem nañ ci préfet dem nañ ci préfet waaye ñun tey ñun mënuñu na teguñu bët préfet président moo dugg dem na moom de nee na gis na préfet ñun leer nañu gis ko wala daan na préfet dana saafar affaire te loolu dafa nekk loo xam dafa yomb am loo xamante ni bu jotee ñun ñu toj fi oto waru ñu yàq fi dara waru ñu yaa ngi dégg kon am loo xamante ni c'est pas normal te lii dañoo jug pour mu moto yi dañoo bokk ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi sàcc ñu fenuñu defuñu droit di liggéey taximaan yi ñi droit ñi ngeen baal ñuy daw mini bees ñu jàpp ñu loolu du yoon dañ ñoo war a dimbali bàyyi ñuy liggéey nga xam suñ moto yi lañ am waaw jàngat mi ci am booy ñun ñun danañ def lépp luñ mën danañ jug ci yuuxu ba waa askan bi yëpp xam ne ñun yuuxu nañ duñ yàq rek te duñ tooñ mais en tout cas daal liñ man ñu ngi koy def mi manifeste wala man ñu ngi koy def léegi nag autorité yi ci nekk dëkk bi dañ ñoo war a jàppale waaw ndax fii nii lu xew rek ñu ne borom jakarta yi borom jakarta yi mënu ñooy ñàkk ci ki ñu ne ay passe ay vingt sept ans vingt huit ans xale bu ndaw la yor ñaari soxna waa këram yaakaaroon ko muy liggéey tey ñu koox bu ñëwee seen waa kër na leen faatoon koox lan lan la seen waa kër di dund tey ah lan lay dund tey lan lay dund te dëkk fi la tudd waaw liggéey rek la xam liggéey ba ni muy faatoo ci kuus lañ ko fekk boroxaan la dëkk mais ñëw fii daal doole moo ko indi mais dëkkul fii sax ci dëkk bi xam am loo xamante ni dafa ñaaw yot jabar yooyu ñaari doom ñu yaakaar ci moom ñu buum doomu jaamur ji nii lan la ñuy wax waa këram lan la ñuy wax waa këram te lii du tay rek la fi am ay yoon Jakarta ñu ngi lan teg fi ay métit ba tay waaw